asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ci turu sëriñ bi sëriñ Bachir Anta Niang mi nga xam ne moo di xalifatu Cheikh Ibrahim borom Daaru Muxti ñu di ko ñaanal yàlla sunu borom bu may ko wér ak kattan ba mu mën a taxawee bu baax ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey boroom Daaru Muxti ci kër sëriñ Touba. Mhm. te yàlla may nu it nu ànd ko moom di leen nuyu ci aw turam di yëkkati yoo xam ne mi ngi bàyyi ko ci moom. te lépp aju ci bisu borom daaru moxti bi nga xam ne mooy bisam bi nga xam ne seq ko kenn ku dul sëriñ Touba muy nis fu sax baan fukki fan ak juróomi baraxlu gi sëriñ bi nag dafa jëfandikoo li nga xam ni ci sëriñ Mouhamadou Awa Balla ba léegi mooy li fiy dox mm-hmm. mooy ku fi toogal borom daaru moxti ku nekk dangay wax ne bis bii di bisu borom daaru moxti ku fi nekkal sëriñ Touba ndigal lu mu ci joxe rek loola mooy wéy loolee nag moo tax ba nga xamee ne sëriñ Mouhamadou Awa Balla am na ko ci ci ci ci sëriñ Mouhamadou Moustapha euh, ab ko ci Cheikh Mouhamadou Fadil mm-hmm. loolu nag mooy wéy ba ci sëriñ Mountakha mi fi nekk tey mm-hmm. yàlla dajale ko ak moom yi mm-hmm. muy borom Daaru Muxti kee di sëriñ Touba sëriñ Mountakha euh, woolu ma ma ànd ak sëriñ Moustapha mi nga xam ne moo mag ci njabootu sëriñ Bassirou Anta Niang ba ma demee mu xamal ma ne li ma yónnee ci sëriñ bi mooy damaa gis ne jamono toll na foo xam ne dajale mbooloo ak ak i mel na ni du du du lu war a mën a nekk. Mhm. ndax yi ci aju dafa bari. Mhm. ba loolu sax man moo tax ma teg poroxaan ji ci suuf loolu moo tax képp ku ci bokk ku nekk loolu laa lay digal. Mhm. ndigal li moom mooy damaa bëgg sëriñ bi sëriñ Bassirou Anta Niang mu ànd ak njabootu borom Daaru Muxti gépp màggale ko. nisfa saxbaan ji ci xol ak ko sellal mm. dara yëngatu ak i xumbeen ba bañ bañ caa am loola nag jàpp naa ne nañ koy defe mooy eh, alxuraan ju mat sëkk ju sell mm. xasida sëriñ Tuubaa yi ak lépp loo xam ne lu mën a jëriñ aji dawlu la mm. ñu fa nekk ci borom daaru muut akum njabootam ak mboolem jullit yi mm-hmm. loolee bi ñu ñëwee nettali ko sëriñ bi ne ko lii la doon woote sëriñ bi dafa xam ne kon Euh, am na sax lu ma jël jëlatoon bi ma sëriñ mun taxa waxee loolu dama ko ne ah, lii de doy na waar ndax mhm. euh, démb ci ajjuma ji day euh, dëmb ci ci ajjuma ji ak dibéer la woo mhm. ma ne ko barki démb ci ajjuma ji day mhm. la mujjee wax ne ndax déggagun ngeen ci sëñ ba dara ci lu jëm ci màggalu daaru bi man ñu ne ko ma ne ko man di Kazu Rajab laa dégg déggagun mu wax ak waa kër sëñ Fadlu yi kon nag bu fekkee ne gaaw rek fi jaar dibéer ji ñëw nga wax lii kon mën na mbir mi nekk na fam nekkoon ba ñëwee nettali ko sëriñ bi moom sëriñ Basiru mu xamal ñu ne nañ daal di jokkoo ñi nga xam ne ñooy waa kër waa kër borom daaru muxti yëpp mm-hmm. eh, tàmbalee ko sëriñ xalit ba ak boobu ba kër yëpp daj eh, noonu yi na lañ ko defee fii mooy wax ak yow daal man naa ne kër sëñ Abdul Jamil mooy ki bi nga xam ne moo ma dese woon ci suba bi ma ko waree bi ma ko waree woo par mm-hmm. yàlla dogal ñu ñëw ci jataay bi nii mm-hmm. waaye bu du ku dul loolu rek mbooleem kër yi kër borom daaru muxti yëpp fenn fu ci ne baatub sëriñ bi sëriñ Bassirou Anta Niang àgg na fa mm. jot li fa ndigalul euh, sëriñ Mountakha mm. moo di ne màggalu Darou Mouhty gi mm. duñu ko fomm waaye nag dañuy soppi doxin bi ndax loolu mooy yëgle goo xam ne gi mooy euh, bisu borom Darou Mouhty dikk na muy nisfu saxbaan kenn ku nekk foo nekk nga màggal ko sellal ko jàng alxuraan jàng xasiida te xam ne lii mooy bisu borom Darou Mouhty bi nga xam ne mbégte lañ ciy wut mbégte nag su yàlla dogalee nga jaare ko ci borom mbégte ndax sëriñ Bassirou Euh, dafa am ku ñëw ci Serigne Touba. ci njaareem ne ko Serigne Bassirou mooy nuyoo. mu ne ko tee nga wax ne ki nuy bégal. kon nag sëriñ Basiiru Anta Ñaŋ bu fekkee ne mooy ki ñuy bégal hmm. jële ndigal ci sëriñ ñu sëriñ Muntaxa moomee di eh, meññetum sëriñ Basiiru moomee jàpp naa ne mbégte mu ñuy wut ci eh, dajëf sëriñ Touba bi ak borom Daaru Muxti yàlla mën nañu ko cee defal loolu lépp nag day fekk ne mbir day tënku ci ndigal hmm. tënku ci ndigal moo nu may lii lu lu nu am ba léegi tey leneen lu nu am ëllëg it moo nu koy may hmm. kon sëriñ bi dafa bëgg daal fu waay nekk te aju ci borom Daaru Muxti wala ngay koo xam ne kii daa nga màggal bisu borom daaru ndax borom daaru moo ti bisam bi bari na ñoo xam ne daanañ ci jàng ay kaamil te bokkuñu sax tariqatul muridiya mm-hmm. bari na ñoo xam ne daanañ ci feeñal seen yéene te bokkuñu ci tariqatul ñoo ñooñu ñëpp kenn ku ci ne fa nga nekk nanga ko sellal te matal ko xaw na wuute ak daaw tuuti ci menn mbir mooy booba dafa am euh, lu ñu tuddee état d'urgence mhm. nga xam ne kenn du génn raison ak raison mhm. loolu am nañu bari xam ne jàppoon nañ ne sax loolu moo tax ba nam na mu féexe woon mu féexe ni mhm. waaye tey jii ba tey mën naa féexe noonu ndax murit moom pas-pas rek am solo ci mu ak gëm-gëm ak béy ci ndigal loolu moom du caag yéen mooy bunt buñ tëjëk ak buñ tëji ndax nun kat li ñuy def lépp ndigalu sëriñ bi dong moo tax nu di ko def waaye ragal jàngoro wala ragal keneen wala wut bëgg-bëggub keneen taxut ñu di ko def wala ñu di ko daw li sëriñ bi bëgg rek bëggal nu ko muy lu baax ci noonu loolu rek la ñuy wut mm-hmm. kon sëriñ bi dañuy ñaan yàlla sunu borom mu yàggal ko fi te wér mm-hmm. te sëriñ Muntaxa nga xam ne itam moo fi nekkal sëriñ Touba bi ak ñooñ mm-hmm. ba fu ne ma def noonu ca poroxaan kon loolu ko yaakaar naa ne nit nii laa def te lépp dellu ci yàlla sëriñ bi loolu yomb a dégg la yomb naa dégg ndax bu fekkee ne pas-pas rek moo nekk ci yow ak dundal mbégtam sëriñ Touba ak borom daaru muuti la loola bis boobu boo ca àggee fo foo nekk war nga ko fa mën a def mm-hmm. wut ci ngërëmul sëriñ Bassirou Anta Niang mi nga xam ne mooy xalifa borom Daaru Muxti mm-hmm. wut ci ngërëmul sëriñ Muntaxa mi nga ne moo fi mooy xalifa sëriñ Touba mm-hmm. lépp nag dellu ci sellal ji xam ne nag mooy la war ci diggante euh, jaam bi ak boromam su bëggee dara ca la muy la muy jëf la muy jëf ixlaas moom lu mu génn rek dara du ca baax waaye nag lu mu dugg it mu dal di jëkk kon nag loolu moo tax sëriñ bi bëgg daal te ne ko sëriñ bi waxee nañ ko doxale woon daaw ba mu ko joxee ndigal ci sëriñ Abbas yàlla na ko yàlla dolli ay xéewal nañ ko nañ ko defee noona mm-hmm. lépp loo xam ne lii daal nit a ngi ko ci def na seet na seet ci boppam moom ne ndax lii may def moom dëppoo naag li sëriñ bi bëggam déet rek loolu rek mooy li ci am solo mm-hmm. lii may def ndax dëppoo naag ni ko sëriñ bi bëggam déet rek loolu mooy li am solo mm-hmm. ndax xam nañ ne sax murit moom euh, am na góor gu baax gu daan wax naan murit seenu xër ci sëriñ bi dafa àgg ba ci seen jàng yi nga xam ne dañuy jàng dañu ci bari mokkaluñu sax la ñuy jàng wala xamuñu nu ñuy jànge yàq ga ñu yàq nee na boo ko jàppee noona nee na da nga koy jàppee ne am na xeet woo xam ne bu ñuy saaga dañuy defe ne ba bu ñu jàkkaarloog yow wax dañuy defe ne euh, seen way jur la wax waaye bu dóoree nga xam ne yow waxuñu woon seen way jur yow la ñuy wax moo tax mu ne seen seenu seenu ñàkk ràññee yenn yi mënees na leen ko jégal ndax pas-pas moo koy lal mm. pas-pas nag lu mu lal rek day baax waaye pas-pas bi tey moom mm. mi ngi ci ñu wéyal ndigalu sëriñ Bassirou Anta Niang mi di xalifa borom Daaru Muxti hmm. eh, teg ko ci ndigalul sëriñ Muntaxa mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Touba hmm. moo di bisu borom Daaru Muxti bi hmm. ci nisfu saxbaan bis fa yàlla dogalee weer wi feeñ danañ xamal ban bis lay dëppoog moom waaye su boobaa nañu xam ne nii la ko sëriñ bi bëggee lu ci waaye def lu nekk nga xam ne yaa ngi dakk bëgg-bëggu sëriñ bi te di ci wut ngërëmul sëriñ bi ngërëm loolee nag xam ne moo ni jëriñ tey dina ko jëriñ ëllëg daal mooy kàddu yi nga xam ne moom la ñu waroon a yëkkati wala ñu àgg ci sëriñ bi wala ñu àgg ci sëriñ Cheikh Assou Faye xam leen ne sëriñ Mountakha woote woon na yónnee ci sëriñ bi sëriñ bi dégg na ko joxtal na ko mbooleem njabootu borom Daaru Muxti gi tàmbale ci sëriñ xalit ba ci kër yi nga xam ne kenn ku ci nekk yaa mag ci kër ga nga nekk lépp yëgal na leen ko hmm. wëlbati ko nag waxaat ko ba ñëpp dégg ko hmm. koo xam ne ki yaa ngi ci beneen barab xëy na léegi boo jàkkoog sa kër ga nga xam ne fa nga fa nga aju sax dana da nga ca xamee dara hmm. waaye nag mu boole boolewaat lépp nag waat ko mais ñëpp xam ne fii la nekk nii la ko bëggee mooy na lépp sell na lépp rafet te lépp bu baax ñu wuti ngërëmul sëriñ Touba ak borom Daaru Muxti yàlla may na nu fekke waat ko diwéet yu bare bari te buñ ko fekkee ñu tal ko ba ñoo xam ne na la ko nit ki bëgg a defee rek ci ci gis-gisu boppam ci ngir ngir wuttee sa ngërëmul sëriñ bi mu mane ko noonu loola kenn ku ci ne sa xol la yow yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal ñaan yàlla sëriñ bi yàlla yokk ko kattan ak wér te may nu ko nu ànd koog moom ba lépp lu mu yëkkati rek lu nekk bu gestooro gis nu nu ànd ko am ca ndam ndam ya di wéy ndam ya di wéy ila macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu